ngi leen di siyaar gën ngaa tëdd siyaar ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ci ndimbal gi feex gi ñu ñëw fii seen tig ëttig eh, mu doon honneur bu rëy ci ñun di doon sac bu rëy ci ñun di sunu feex ñu ñëw am occasion siyaar leen ku tedd gi mel ni ne ànd ak njaboot gi eh, soxna Faati eh, soxna Ndey ndeysaan moom émotion bee ko jàpp sax

foo foo foo fu mu dem kër ga ku fay ñëw le même discours soxna nday daa baax soxna nday daa baax kon kooku wax fa dëgg yàlla ku tedd ki euh, ah, dimbali gi nga ma dimbali ma bokk ci ci famille boobu noonu di famille bu tedd loolu loolu ak cant gu wér la bàkki sëriñ Béthio Thioune loolu dinaa ñëw euh, xam naa sax damay gàttal kàddu gi waaw waaye ku tedd ki santaat naa ci bu baax a baax a baax a baax a baax

ay parfum yo xamné c'est des parfums gravés euh, ci sen tour ay ay ay tamit euh, ay essence Amazon Amazon melni mais mo mo xawa euh su tout Yves Rocher mu essence la def ay huile mi waaw santaan ci bu baax a baax a baax moom ku tedd ki waaw yi waaw ak xaal yi xaal yi nga xam ne sant seen jàmbaar ji Alassane Sène moom mu ko soufflé ndax ñoom tamit dañoo bokk ci yi nga xam ne dama ànd ak ñoom euh, tey siyaar bi muy sant Sène nga xam ne seen jàmbaar la ñoo nekkoon ensemble Toulouse di Pape Sène Pape Sarr ndeysaan pap Sambou ñu nekkoon aussi ensemble Toulouse di tamit universel Modou Sall nga xam ne ku tedd dama ko fekk ci liggéey togg ajuma yi mu koy defee nu sell nu rafet lu lu passeefu ànd koog njabootam gi ànd koog universel GBC ànd koog itam universel jëwriñ euh, itinérant mu lay te njabootam moom wax fa dëgg yàlla euh, samedi euh, jeudi yëpp ñu ngi doon teew tedd ki di xool liggéey bi nu nuñ koy nuñ koy tëralee waaye seen njàmbaar ku tedd ki moom moom moom moom c'est sans ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax Ah, ku tedd ki kàddu yi moom ci tënk ay kàddu rek la amaana dama mën wax sax ne ko def ko def c'est pas des n'est on est rompu à la tâche non lii buñ koy def effort lay suñu liñ koy def euh, du doon lu barki sëriñ ndax suñu compagnonnage ak ak yéen bi ñu loolu daa yàgg te depuis ce temps ça fait plus de de 20 ans moom ñu ngi wéyale nekk ci ci ci bëgg-bëgg mom sëriñ bi nekk ci ci ci ci li nga xam moy lim ñu tracel suñu aduna amatu ñu dara de toute façon on a été formaté pritan lañu ne woon euh, doon fa don fa jàngee muy man ak Amir Alain job di Ousmane lich di ñom Aba euh, universel ñom ñëpp fofu lañ ne waye waaye sëriñ bi teel ñu fa jëlé pour la pour certains étrangers, étrangers ñu nekk fa ils doxal waye buñ fa un an deux ans mu daf ñu jëwriñ ñu nekk fa Toulouse nekk sen jëwriñ ma nekk fa sen jëwriñ fofu Toulouse ba fi ma ba fini wax formatage bi l'ol la en fait xamuñu leneen barki Serigne de lu Serigne ne xamuñu du wajur wajur lu mu bax bax bax xamuñu ko sam papa la dernière fois ma ngi pas Amir Pabas message bi nga xamné ay message de remerciement la mu ko ci sen ci te au début c'était pas facile waye ñom ñëpp fi mu toll nii sama famille amul kenn ko xamné mom mom am nga ci loy loy lële té loolu té loolu sen dafar la ñom amana liñ doon école j'avais de très bonnes notes ma dem fële tamit euh, Toulouse université bi di fa jàng di cumuler ay diplômes di dafando ay ay ay ay plusieurs diplômes doon sax ben instant di daf euh deux licences à Toulouse à Montpellier ngeen dimbali ma ma nekk di jàng euh, DEA deux ou trois dem après doctorat bi ma demee kat doctorat bi nag j'ai pas pu euh, aller au bout du doctorat lol nak xaw leen ñagas xaw leen metti ñu japoné euh forcément lutte sociale forcément euh, euh ñom chemin bi nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy tracer pour sen dom Lolo ça passe par jàng bi waaye yoonu bi da da yaatu te te te te barki serigne bi ci daf ngeen fi mu ni wax fa tous les jours il m'appelle tous les jours que Dieu fait te ma ngi ni damay wax ne ko sama séjour bi ko benn fois au moins Dakar demaguma kër ga chaque fois may wo ne ma non non reste là-bas euh, elle est trop gentille ça fait un moment

il croyait que ne sëñ Béthio pouvoir bi amoon ci doomam euh, taxoon na muy muy mu nangul ko ni ko waroon a nangoo waaye léegi moom lépp a leer barki sëriñ Béthio Thioune ku tedd ki dimbali ngeen ñu moom famille bi amul kenn koo xam ne danga ñuy solliciter ci lu munti doon te duñ ko faj barki sëriñ Béthio Thioune ñëpp ku am soxla ñun lay woo te da nga ñoo dimbali euh, amaana sax avant c'était pas comme comme maintenant waaye euh, léegi ni ngeen ni ngeen ñu yeewee maa ngi koy wax la dernière fois euh, grand théâtre ni ngeen ñu yeewee ci entrepreneuriat ñu sóobu ci barki serigne Béthio ciun ciun wax fa deug yalla yëf yi dafa daa yaatu ñoo ngi liggéey ñoo ngi ñoo on on emploi des gens té té xam nañ né yëf yi ci kaw ci kanam rek la jëm barki serigne Béthio ciun en moins de huit mois on a pignon sur rue foofu ñu nekk té li ñuy def c'est pas c'est c'est pas donné bâtiment la construction la entreprise de thème de coffrage la té euh, c'est des bâtiments qui xam ne du pas de la construction individuelle C'est c'est du tertiaire c'est des euh, hôpitaux donc domaine boobu noonu lañ nekk prison aussi waaye da nous ñoo dimbali ba euh, looloo garaaw ndax sociétés qui ont ne nañ fay implanté waaye biñ ñëwee ak expertise nous avons des société qui ont xam ne ils font appel à nous nous ñu defal sous-traitance pour que ces seen seen i mbir gën a barki Serigne Béthio Thioune ñoo ngi am ay contrat en direct kon ku tedd ki ñoo ngi leen di santu bu baax a baax a baax a baax a gi guddal ko yaawi lépp ay kaddu cant la ñu ngi leen di santu bu baax du fond du cœur waaw moom xam naa maa ngi ko doon brosser sax xam na foofu laay tëjee muy soxna Faati Thioune di jëmm joo xam ne ah, ah.

j'avais am sax je pouvais pas envoyer waaye mom ci ni ngeen ko yaré ci soxna nday ni mu ak mom diko diko diko waxtanal di soxna ay de si aussi lolou da daf ba mom kenn musu ko fenn barki Serigne musul wax musul ni te c'était dur barki Serigne Béthio Thioune waaye tey occasion ku tedd ki len ko ko wax ne wax mom santana bu baax a baax a waaw barki Serigne Béthio Thioune 2005 ba léegi lolou ak dir la am nañ ci Mame elle a grandi elle a de bonnes notes en classe euh, première lay def ngeen dimbali ko Thioune ah waaw té gisul leneen lul jàng bi mom euh sama papa day wax sax né elle me ressemble un peu waaye waaw non rek la demee <laughs> dañoo dañoo dañoo yag bëgg jàng biñ nekkee président ne Alain Diop ngi ni da nga ñoo dimbali won mom jàng mom dañ ko defoon suñu suñu sacerdoce de tous les jours kon ku tedd gi wax fa dëgg yàlla ñoo ngi leen di sant bu baax sant ci soxna Faati sant aussi ci soxna Yacine dynamique nekk Toulouse di jàmbaar ci liggéey bi moom euh, lépp loo xam ne daa jëm ci médicaments yi lépp loo xam ne daa jëm ci vie de daara bi elle attend personne aussi euh, conjugalement tamit ku tedd ki jàmbaar la barki Sëriñ Béthio Thioune kooku mooy ki nga xam ne ni ma wax sànq ci soxna nday rek elle est entière voilà moom elle est juste te xam na lu muy def te daa bëgg sakk. foofu da leen di voilà chaque fois da koy wax sax da ci da ci glorifié ne man damay niroo ko tedd ki nax daa bëgg sax daa bëgg lu baax te loolay nit. tedd ki santaan nañ leen bu baax a baax a baax ci lépp ah waaw moom siyaar bi danañ fi ñëwaat ku tedd ki te dana gën a neex ñoo ngi koy waajal danañ ko gën a waajal waaw ah, étranger ñëpp danañ ñu ngi ñu ngi ci ci liggéey bi seen liggéey bi tamit bàyyi ñu ko benn yoon waaw ah, ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ci biir ñoo ngi diisoo saa su ne ñoo ngi concerté wu di xool. à chaque fois nu ñu mun def ba yëfi di di avancer di évoluer kon li ñuy sàkku rek mooy ku tedd ki taalibe bi ngeen teel ñu ko waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax tey ñaan ngeen jàgg fi loolu tànd ak weer ku tedd ki jërëjëf ndax comme on dit il faut toujours garder le meilleur pour la fin du dëgg kon ci tedd ki moom ngeen xool ko mi ngi ci ginnaaw ah mi ngi ci kanam aussi kon ku tedd ki waaw ñoo ngi leen di sant bu baax Aïdo Style euh, maa ngi koy wax keroog euh, ne ko Aïda Sall li ci li ci doy war du du le fait que ñu lay ngay ñëw fi ñu lay solo yu yu kérok euh Alioune Gueye dama ñëw il était quoi 15 h 19 h mu jox ma yéré ma sol ko mom la dugaloon kérok ci ci ci ci réseau yi mom nga dugaloon kérok ci réseau yi du ma ko dugal. waaye ku tedd ki li ma doon wax euh, et là je suis très sérieux barki serigne Sëriñ nax euh sama grande sœur Mbathio Diop la tudd dama dafa gis vidéo yi mu woo ma ne ma yónni dafa ma message quoi mais en pleurs ma ko wa lu xew mu néma li dafa neex suma la gissé ni j'ai une pensée pieuse à à à notre regretté mère bi nga xamné ne Jojo jaw dellu na te xam ne bu ko gisoon day bëgg li ñun ñëpp famille bi dañoo dañoo bëgg Aïdo sal Thioune li ngeen di daf c'est au-delà de de l'habillement Li, ku tedd ki day day da valoriser. xam je trouve pas les mots xaw peut-être Alassane dana ko mën a expliquer waaye da lay valoriser man je me suis senti euh, beau mais je ne suis pas <laughs> loin de là waaye waaye Non la ndax xam nga boo solee ñëpp di la wax ñi nga xam ne sax dañoo taam di wax da nga ñaaw da nga ñaaw da nga ñaaw bu ñëwee tamit ne la da nga rafet et loolu da nga yëg sa bopp te lépp ci Aïda Style bi la kon ku tedd wax fa dëgg yàlla Aïda sal ni ngeen ñu solo Mon moom bouffée d'oxygène la voilà c'est ça le mot bouffée d'oxygène la kon daal Aïda sal ah waaw refrain bi nante la sax